Je damay sant yàlla bu baax di parce que en def na ni 2012 euh, ba tey ministère bi 2012 laa fi ñëw poste préfet directeur de cabinet def un an euh, président Falma secrétaire général ministère bi donc li may wax ci développement et surtout ci mbirum infrastructure nit mën naa am njort ne lu lu dëgg la wala lu ba xam la euh, nit nag mën naa contre Macky Sall en tout cas ñi dëkk Casamance ku mu neex mu nga ne man damaa contre Macky Sall <laughs> mën ngaa taxaw ne man Macky Sall neexu ma <laughs> loolu ku ne am na ci droit waaye nag mënoo wax ne Macky Sall defu fi infrastructure te loolu dafay am firnde gis nga balaa en 2012 régime B. bi Casamance dafa tumuranke woon ci wàllum infrastructure ma jox la exemple région Kolda ma jox la le département bi nga xam 2008 lañ ko créé muy département bi dina Yoro Fula dafa un département boo xam député yi saa ñu demee assemblée nationale moom la ñuy jooy Medina Yoro Fula nekk département boo xam un seul mètre un mètre là la wala même bëggee benn centimètre goudron am indépendance 1960 ba tey amuloon ñoom ñu daan naan mais ñun xanaa dañu de Sénégal aujourd'hui tey nii may wax ak yow ñoo ngi liggéey tali bi nga xam euh, Kolda ak ci département bi na yoru Fula 2012 man sa wàllu ministre de mission Cap Skirring parce que ma ngi fatali ni aéroport Cap dañ ko piste ñu défar piste bi bo daan usui usuy di jëm Cap Skirring parce que turistik pour nit ñi xam ko zone touristique bu maga maga mag la comme Saly waaye dama leen di ñaax rek yeen bo leen amé jot ngeen dem Cap euh bo fa démé rafetaayu Cap da nga naan ah mais yalla yalla ay bour yalla ay kaam daa fa rafet tubaab bi bëgg ko waaye nag bu amul sécurité mais ñi niñ fa dem alors léegi Cap Skirring 2012 bi ñu defar tali bi defaraat pont bi nga xam ne commencé woon na yàqu ci même mission bi ñu demoon côté Diouloulou Diouloulou ba Abéné euh, Abéné dafa nekk zone touristique tamit waaye am na benn port euh, de pêche moom laa doon sànq ci français moo ngi tudd Kafountine muy nekk port de pêche bu mag a mag mais jululu ba Kafountine environ une vingtaine de kilomètres ñun ñoo defar tali bi pour la première fois musuloon am léegi jógee Diouloulou dem Kaf euh, Kafountine c' était quelques c' est quelques minutes alors que avant waxtu nga daan def alors ma jël exemple Sédhiou Sédhiou dafa nekkoon dëkk boo xam ne tali yi fa nekkoon c' était tali yi ñuy defaroon.

nga def pour 80 km. kilomètres bara waxtu 45 minutes nga def ko Ra ci doli nak Marsassoum nga xamné bras de fleuve mo fa jaar séparé euh, euh commune Marsassoum bi ak benen côté région Ziguinchor bi parce que Marsassoum frontière la entre région Sédio ak région Ziguinchor def nañ fa ñu ngi fay def benn pont bu soobee yalla en décembre 2021 le pont de Marsassoum dañ ko terminé mu des choses visibles et palpables région de Ziguinchor ma quel département bi ñu ne ma xam sais mooy département bu gën a mag ci région Ziguinchor parce que presque 70% du territoire de la région de Ziguinchor est ngi ci département de ñu na mais département boobu amuloon tali sauf une boucle bu ñuy wax boucle du Boulouf jógewoon Tànjem dem ba Thionckefile tourner

bees am doole ba oto yi bu fa jaaree duñu ñu mën a yàq dara mais surtout tale bi dañ ko yokkaat parce que dafay nekk buukul dafa ñëwoon ba yem Balengoor waaye dañ koy yokkaat mu ñëw ba juuru ñëw ba Koutengoor nga xam ne day fooy dem tali la boucle da ngay tourner ci tali bi am na yeneen boucle yi nga xam ne dafa am importance mais kenn mësu kaa defar mooy boucle Kalounayes Kalounayes nag dafa nekk zone économique bu am doole am dëkk yu mag a mag comme Koubalan yu nekk foofu En 1960 Sénégal amee indépendance ba tey mosuñaa gis tali dañu lancé les travaux de la boucle des Calounaay Ils ngi koy defar presque 50 kilomètres mu def benn boucle bi nga xam ne boucle Fogny boobu moom bu terminé rek euh, li ko waajo doon toutes les boucles de la Casamance seront bouclées mooy ban mooy boucle du Fogny

Euh, lu bu nekkul tali am na yeneen fànn yu bëri nga xam ne def nañ ko ci wàllum développement euh, ma terminer ci infrastructure yi ma dellu si ci yeneen fànn développement ci infrastructure yi dafa am benn boo xam ne moom laay mujjee parce que moo ëpp solo xam nga bu njëkk Casamance Casamance mooy région benn région Sénégal boo xam ne boo fay jógee di ñëw Dakar wala beneen région Sénégal da ngay jékki da ngay jéggi benn dëkk vous jógee du reste du Sénégal di à Casamance da ngay jéggi Gambie Gambie dafa nekk de Casamance ak reste du Sénégal alors même ci xel yi gars gens dañ doon jàpp ni am na ay différence ñun bu ñu nekk vous da ngay dégg mag la man Sénégal parce que simplement jàpp na ne booy dem Dakar da ngay traverser benn dëkk heureusement aujourd'hui, président de la république def na benn ouvrage bi nga xam c'est extrêmement important ouvrage boobu Senghor jéemoon na ko am yalla def na Senghor amu parce que c'est un ouvrage stratégique Abdou Diouf def na pexe bu ne mais yalla def na Abdou Diouf amuko ablay wad Wade jéem na def na kàttalaay kàttan waaye Ablaye Wade amu ko rek ay maye ah xaw ma ndax ngóora la wala mayu yalla la way dal neex na xari Macky Sall ci Macky Sall lañu réaliser pon Farafeñe pon Gambie muy pont bu mucc ayib gis nga danga daan ñëw benn bac ba doon circuler léeg-léeg nga egg si huit heures wala neuf heures ci suba bara nga traversé dix-huit heures léeg nag ay période fête ak yooyu ñun étudiants yi bu ñu daan jàngee si Dakar bi ñuy dellu da ngay ñëw egg si fa ay neuf heures ci suba wala dix heures léeg nga fanaan fa da ngay fanaan parce que benn bag mooy yóbbu oto yi bu ñu bëree rek mënul yóbbu lépp boo fa fanaanee moom da ngay tumuranke parce que ya yooyu nag moom daañ la jàpp bara bara suba si moom sa yaram day yàqu muy taw sa kaw doo am foo foo dugg fi nga xam ne minimum da nga fa daan def 6 heures 7 heures de temps tey 2 minutes nga fay def 2 minutes nga fay def da ngay ñëw rek dawal sa oto yéeg wàccaat yaa ngi Casamance gannaaw ñu sant yàlla <laughs> mais sante ko président Macky Sall moo ko def góor gi de mën na laa neex <laughs> mën nga kaa bañ waaye loolu la yàlla def moo defar pont bi man nag ma jàpp ne amal nañ ko njukkal parce que moo def rattachement physique lëkkale de façon physique Casamance ak le reste du Sénégal ça c'est l'histoire ça c'est la vérité kon bokk ma yaakaar ne en matière d'infrastructure wax dëgg yàlla gouvernement bi def na fi gouvernement Macky Sall régime Macky Sall def na fi li nga xam ne ah keneen defuko ko keneen liggéeyul de waaye en tout cas li fa def moom ci Casamance ñëpp mën nañ ci teg baaraam mais yamul ci tali parce que tali c'est l'essentiel du développement tubaab bi dafay wax ne les routes euh, le développement de la euh, le développement de la route la route du développement passe par le développement de la route mooy reprendre la route du développement passe par le développement de la route boo bëggee développement foog nga am tali c'est important moo tax moo taxaw ci bu baax a baax waaye nag développement yemul ci tali xam nga nit ñëpp bu ñu maree naan foog ñu naan bu ñu bëggee naan daal jur ji foog ñu naan daal jur ji mais loolu foog nga am forage li may wax nii depuis 2012 ba tey minimum 150 forage dem nañ ko ci 3 régions Kolda Ziguinchor ak Sédhiou électrification amoon na ay dëkk yu mag ay groupe électrogène lañ doon doxee. L'électricité, électricité am na même les grandes villes comme Sédhiou comme Bignona mais électrification bi taxaw na ci ville villes gis ont andi nañu énergie solaire lampe solaire yi nga ne état du Sénégal andi 500 lañu andi programme mais dëkk yu melni Bignona wala vous am nañ ci ba nga ci fi day sécurité alors donc lu et eh, beaucoup de villages beaucoup de villages am nañu électricité alors boo jógee ci loolu nag xam nga ñun Casamance yàlla dafa def am nañ naaj comme le reste du Sénégal am nañu gàncax comme le reste du Sénégal mais boo bëggee gis forêt yu dense très dense ah bu dul région Kédougou wala Tambacounda région de de de de Casamance yu Casamance Kolda et surtout la région de Ziguinchor vous voyez juste les forêts là forêt yooyu damay ñaan sénégalais yi rek ñuy doxantu bu ñu vraie forêt forêt bu naas foofu nga koy des arbres impressionnants mais loolu beaucoup ko Il nga am des cours d'eau parce que la la Casamance est très verte réseau hydro hydrique bu am a des am fleuve bras de fleuve am des rivières mais dafa bëri ndox de na Casamance lolou yëpp boo beaucoup ah mais si góorgóorloo tout ci liguey xif xiif warul sonal kenn alors agriculture dafa am importance di nga une importance au nord du Sénégal avec euh, le, fleuve euh, Sénégal nous la une importance avec les rivières de la Casamance avec le bassin de l'Anambé etc donc mu am un ouvrage bo xamné dafa amone solo pour région kazan eki Ziguinchor mais surtout le département de Bignona moy le barrage de Afignam Afignam ben village la ñu tuddé barrage bi nag tuddee ko noonu barrage bobu chinois dans les années 1970 et quelques chinois yi fait, une ci coopération chinoise mais xam nga moment, euh, moment président Ablaye Wade dafa gëlon décision rompre relations diplomatiques avec la Chine populaire mu dem avec ak Taiwan. ah bobu nak chinois Chine populaire tamit dit que taxaw barrage bi commencé Yahou. mais Sénégal dafa dellu léegi nek euh, di ligue ak Chine populaire ba nga xam ne euh, président Chine bi Xi Jinping bu mu fi en 2018 mu annoncé né Chine dina le Sénégal pour le barrage bi effectivement défendu nañu barrage Mais le barrage va fonctionner. fonctionné mu am solo parce que toute cette zone du département de Bignona amul ben zone département Bignona bo xam ne amuloo bénéfice ci barrage Afrique donc nit ñaa ngi bay léegi rivières yi nga xam dañ daan saliniser maanaam am xorom rivière yi nga xam dañuy am xorom ba kenn ci fi bay ba am ci dara ndox ba nga dellu ci ndox mu neex ba nga dellu ci ba nga xam bo boo ah soobee yalla yow di nga am di nga am ci